mu ne ko yow mi gën a ndawe ci nit ñi te di leen liggéeyal yal na la yàlla defal barke ahlul kushoofa yi wax nañ ni boobee ba tey barke day topp ndaw luy liggéeyal ay mag bépp ndaw boo xam ne sa kër kër mi ngi jëm ci lu mag ñi waroon def te seen jot mayu leen ko seen temps mayu leen ko nga nekk ci rek boobee ba léegi ahlul kushoofa yi nee nañ barke booba mi ngi lay topp yonent bi moo noon asalul qawmi xaadimuhum barakallahu aleyk ba fi mu nekk nii nag asalu qawmi xaadimuhum yubarik yàlla daf koy defal barke kon loolu danañ ci am dal xel bu baax ginnaaw loolu nag ñu sóobu ci thème bi nga xam ni moom lañ sàkku ci nun pour ñu waxtaane ko muy li ñu tudde assalaam muy jàmm jàmm nag ji loo xam ni day mel ni mbindeef mënu koo ñàkk yàlla mi nga xam ne dara du ko jariñ dara ndax pare na ci boppam tamit moom ci boppam dafa mel ni da koo soxla daf koo soxla lépp loo xam ne nag mbindeef mënu koo ñàkk ba lu la yàlla yi def loolu ne ma nga ndëxañ ca biir lu lay tax a am jàmm yàlla mel ko ni bindi bindeef yi soxla ko ba feeñal ko ci boppam bañ xam ne soxla na ko kon loolu lu am solo lu mat a waxtaani la ndax sunu boroom bi muy tu muy bi boppam tur yi mu tudd muy asmaahu saahir yi nga xam ne ñoom lañ wax al asmaul laahil al xusna am na ca woo xam ne jàmm la jàmm la ko tuddee assalaam nga xay du ko bàyyee kenn moom yàlla bi muy tudd bi muy tuddoo tur yi mu tuddee muy juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent am na ca boo xam ne salaam la tudd ci bokk ci turam yi nga xam ni daf koo yittewoo ba tudde ko boppam kon kooku moo ci jiitu ci wane ni lu am gëdd la lu am taxawaay la bi ci topp mooy bi mu wutee diineem yi nga xay moom la gën a bëgg ci diine yi yi fi wàccoon ba wax ni bi ma ko xasee wàccee benn diine walaa batul bu dul moom islaam la ko tudde te islaam li muy tekki mooy masdarum aslama li muy tekki mooy maanaa ak muccale loo xay day muccale loo xam ne day muccale kon diine ji jàmm la ko tudde ki ci nekk ñu koy tudde muslim ismu maf'ul la mooy ku ci nekk te pratiquer ko te mu dëggu ci yow yow da ngay muccale maanaam jàmmi kese ngay doon ay du gongi koo ci yow dem ci kenn moo tax ñuy wooyee jullit bi muslim mooy kuy muccale koo xam ne bu dee moom rek bay boo nga tëdd nelaw ndax du la du indil dara lu jàmm ci wax ak ci jëf ak ci comportement loolu mooy tekki baatu muslim ismu maf'ul la al islam muslim nga xam ni jëmmi diine ji day muccale ki ci nekkit mu day muccale mooy jàmm du bàyyi ko ci moom di dem ci kenn bi ci des muy jullit yi ci nekk nga xay ay ne lañ mu ni saabu ci nit jàmm am na importance importance ku ci dajee teg sa moroom na ko ko ñaanal mooy mooy nuyoo baatul baat bi ñuy nuyooyee ba tey jàmm la nga xay ku dajee ku fekk nit mu toog dañuy wax ni da koy wax aleykum yàlla na jàmm nekk ci yéen mun la wa aleykum salaam nga ñaanal ko jàmm mu delloo la jàmm mbooloo buñ dajee ñu néew ñu néew ñu nuyoo leen ko ku war bu fekkee ko toog mu nuyoo mu nuyoo ko ko nga xëy suñu borom fonk na ko ba yonent bi sallallahu wax ni man ba bada'akum bil kalaami qabla salaami fala tujibu ni képp ku ñëw ci yéen tàmbalee ay soxlaam te yëkkatiwul baatu salaam boobu bu leen ko tontu bala ngeen war nangoo wax ak moom na ngeen ko dégg ci moom ba noppi yonent moo digle loolu kon kookot bàyyi na xel ni jàmm du lu du la sa ñàkk tey di ko sàkku moo koy tax am moo tax suñu borom digal bindee fii ñu ko jokkalante ci saa bu dajee ci nuyoo xataa alquran sax wax ni wa yaa bi taxiyatin fa xayu bi axsani minha bi axsana minha aw rudduha bi axsana minha aw bu fekkee nit dafa ñëw ni la asalaamu aleykum nee na na ko ko delloo te yokkal ko ca sax dara wa aleykum salaam wa rahmatullah soo jotadee wala nga ñàkk caa mën a dara itam mu ni asalaam bi moom na ñëw na ñëw aw rudduha waaye baatu salaam bi moom am importance bu moom bu ca manqué boo ca mënta yokk dara itam e, sunu borom bi muy wut juróom-ñetti quartier yam def ca àjjana bi mu bindee àjjana juróom-ñetti quartier la ko def am na ca quartier boo xam ne daaru salaam la ko tudde daaru salaam kon bàyyi na xel foofu ba léegi daaru salaam nga xam ni jàmm dong dong dong lañ fay dund xataa sul maam aadama ba mu fa nekkee sax ba def fa luy xañe jàmm yàlla da ko kon yow dootoo fi mën a nekk ndax fii mën a su fee ne te doo am jàmm daal di koy wàcce xam ni xëy na jàmm mën na faa bañ a am muy fii ci àdduna waaye foofu daaru salaam la nga xëy ku fay ne jàmm jàmm rek jàmm ba fa defee loo xëy nag wootewul nit di ko def di am jàmm da koo rafule andi ko fii kon suñ boroom fonk na ko ba bi muy bind ajjanaam juróom-ñetti quartier ya ca nekk benn ba daaru salaam la ko tudde muy kërug jàmm ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moom dañ koy wax abdou salaam mooy jaamu yàlla bi nga xam ne daa fees ak jàmmi kese daa fees ak jàmmi kese nga xam ne foo ko gisee rek daal di yëg ci moom jàmm ji dund ci moom jàmm ji lañ ru ay ba ca gis dara dara dara lépp nëbbu bala nga caa gis dara xëy na dangay da ngay xaabaabal ba mu ëpp moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci xasida yi ni yaminu nabi fiiha ataaya li sijtida wax ne yasaaru nabi fiiha xafaaya li jaatida nga xëy li diw ay ci moom daa nëbbu doom daa nëbbu man koo xam doom daa nëbbu doom daa nëbbu jasa yanun nabi fiha moom ataayaali fi ci daa la ca di may moom saa boo ko gisee rek tàmbali ci tàmbali ko dund ak jàmm sallallahu mu bokk ci turam yi abdus xëy yàlla tudd na ko jaamu yàlla bi nga xam ne daa fees ak jàmm kese kon jàmm gis nañ ni yàlla bàyyeewu ci aw tur tuddoo ko boppam kim mu gën a fonk ci mbindeef yi Seydina Muhammad ci turam yi tudde na ko ci wenn muy abdus salaam ba noppi tur wa di indi maanaaya ci moom ba ba sëñ Tuubaa ni yaminu nabi fiiha ataaya li sijtida waaye nag yasaaru nabiha nabi fiiha xafaaya li jaatida la diw ay ci moom daa nëbbu waaye lay jàmm foo ko gisee rek tàmbali koo dund ku yàlla mu sa fonk mbaa mu yónni la mbaa nga am garaat ci moom yàlla defal na la jàmm kon da ko fonk ba mbooleem ñi di ay gaayam nga xëy soro fot seen digganteek moom ñépp la la la defaloon jàmm muy yonente yi muy yonente yi ak ba ci awliyaa yi eh, defaloon na ko yonent yàlla Muusa ak Haaroon salaamun ala Muusa wa Haaroon suñu boroom wax na loolu salaamun ala Muusa wa Haaroon nee na defaloon naa ko Muusa defal ko Haaroon day gudd waaye am na ay détails ci yu bari ndax Muusa ba muy liir mën a lagul boppam dara dañ ko def ci ci kees sànni ko ci géej ci dex wala ci géej yàlla defal na ko jàmm ba mu dellu si ci loxoy waajuram ci gàttal noonam ñettamal na ko ba géej sës ci moom amul fu mu jaar mu soobu ca géej ga yàlla fekk ko ca muccal ko alak ña ko toppoon ci noonu ci noonu ci noonu nga xay sunu musaa moom yàlla def ko yàgg defal jàmm ràññ ko ju ñépp xam moo tax mu ni salaamun ala Muusaa wa Haaruun waaye nag inna kadalika najzil muhsinin mu ni nag ku jaar ci seen tànk ya ba tey jàmm rek ngay am yonent yàlla ibrahim suñu borom ni salaamun ala ibrahim defaloon na ko ibrahim tam salaamun ala ibrahim kadalika najzil muhsinin yonent yàlla ibrahim bis nga bu la yàlla defalee jàmm kenn mun laa indil ay ay du am ci yow bunt moo tax namro jël na ko sànni ko ci sawara wu yéeme ndekete woo ko yàlla defal jàmm la xoolal jàmm li muy jural nit suñu borom fi saase mu ne yaa naaru kuuni bardan wa salaamun ala ibrahim ni sawara wi kooku du nit ku ay di dal lu yàgg-yàgg na nga nekk jàmm ci moom na nga sedd sedd mën naa indiw ay mu ne ko sedd bet na ànd ak jàmm mu ne ca biir sa war ay sa bërëx dara wokku ko ca dara xuriwu ko ca ba mu génnaat di doxal mesom suñu borom kon jàmm rekk a mat a ñaan boo ko xasee am rek am nga ko foo mën a nekk fii lay dikk wa fi nahaari kon tegtal la ci yonent yàlla ibrahim kenn ku ne war ñaan jàmm te xam ne boo ko am xësee am suñu borom sécurisé na sa mbir ay amatul ci yow bunt ndax ku ñu jël sànni la ci safara fi saasi suñu borom ni yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim la ca xew-xew ca mu xam ne sedd mën naa lor mu ni sedd bi na ànd ak jàmm ñoom ñaar ñëpp nga ne ci seen biir di ko dund ba génn ca jële woo ca dara lu dul jàmmi kese loolu mat naa ñaan kon ndax mooy sécurité doomu aadama kon eh, defaloon na ko yaxyaa yonent yàlla yaxyaa te koo defal yonent yàlla yaxyaa nag bi mu ko ko defalee ni ko nag dégg nga daal di koy wax daal ni salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yub'asu hayya salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yub'asu hayya mu ni defal naa yaxyaa jàmm ci bi muy juddu defal ko ko ci barsaqam bi mu faatoo defal ko ko yawmal qiyaamatil akbar nga xay ñetti béréb yi yépp suñ borom nee na ah, dama ko faa defal jàmm loolu nag soo toppee taarix ñun lay defaloon na Yaxya jàmm tañ la dañ koo rendi da nga naan ah léegi moom lu tax nag la ko daloon mu mel ni lu ko fi jële woon du du jàmm ah kay jàmm la ndax bi ñu koy faat li ko yàlla dénkoon muy amaana bi di ak risaala nga xay moo ko garanté ci kanamu suñ borom lañ taxawal ci nga ñàkk ko mbaañu ñu la nga xam ni léegi jàmm ja mooy rek mooy ñu rendi ko rendi gañ ko rendi mooy jàmmam waaye ñàkkoon yónni gi ko yàlla yónni woon ñu dégraté ko dootu nekk yonente ay wudul jeex la ci moom ñaar yooyu dend nag lee ñu ko def mooy jàmm ja loolu tax suñu borom xam loolu ba pare nii defal naa ko jàmm ndax tàggale ko woon ak pas-pasam moo di ayam tàggale ko woon ak pas-pasam moo di ayam moo tax biñ ko waree faat ci kaw mu tàggali ko ak pas-pasam te nekk yonent bi yàlla yàlla jàmmal ko ci mu mu dëgëral pas-pasam bañ a way ci la ñu bëgg ba ñu rendi ko mu yóbbaale pas-pasam doon lam doon fa yàlla kon bu nee salaam bu nee defal naa Yaxya jàmm bul tepp taarix rek daan ni déedéet ndax amu ko woon dañ ko def nangam déedéet loole mooy jàmmam de te du am dong nitu yàlla li ko yàlla dénk wala julit bi muy pas-pas ci diggam ak boroomam lépp lu ñu ko dendaleel ni ko ñu def la ko mbaa nga ñàkk sa pas-pas loolee ñu koy def mooy jàmm ja yóbbaale pas-pasam ci yàlla mooy loola ñu koy def mooy aywa yóbbaale pas-pasam ci loola mooy jàmm ja ñàkkoon pas-pasam mooy aywa moo tax mu ni yahya salaamun alayhi yow ma wulida wa yow ma yamuutu wa yow ma wax yaa ñetti béréb yëpp muy bi mu nekk ci àdduna ba mu bu nekkee barsax bu nekkee yowmal xiyaam yëpp yahya defal naa ko jàmm nga ni ah li ko fi jëlee nag mun la loolaay jàmmam de ndax lañ bëggan ci moom ba jëlee ko fi mooy aywa mooy li ko yàlla yanoon rëcc ndeysaan léegi mu ñëw ci Isa nag Isa moom da koo baral loxo Isa ibnu Maryam moom da koo beral loxo da koo beral loxo ndax ñëpp jàmm jim leen defal suñu borom moo ko waxal boppam waxal leen ko Isa mu ne ko yow nag Isa waxal ko sa bopp may naa la nga dugg ci studio bi yow nga waxal ko sa bopp yow yaay waxal sa bopp yow ndeysaan Isa ni salaamun alayya yow ma wulitu wa yow ma amutu wa yow ma ubasu xayya suñu borom ni zalika Isa ibnu Maryam mel ni lu koy bàkkoo ni leen kooku mooy Isa nag kooku kii mooy Isa yàllaa waxal ñëpp ba egsi ci moom ni ko yow waxalal sa bopp mu ni salaamun alayya yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaxasu hayya suñu borom ni leen zalika Isa ibnu Maryam Isa ngoog nag loolu ba tey loolu ñuy tuddee wata taxas genn boor lay xaw a nuru ndax ku ne lan ko defal yaa ko wax ba egsi ni ko Isa yow du la waxal waxalal sa bopp am nga ci sañ-sañ ci biir wax bi mu mu mu mu mu mu mu leeral ci lu baree bari ndax dañ doon wax naan yàllaa ko jur ak dégg nga maam du jaamam yàlla doomam laag nangam nangam benn jumla boobu mu mu mu la ci loolu lépp ndax yow ma wulitu la wax yàlla defal na ma jàmm ci ba may juddu bañ may jur te yàlla nee na moom jurul kenn lam yalit tey isaa nee na yow ma wulitu kon ma ngay ma ngay ma ngay deñtalu ci yàlla di doon doomu yàlla nga ne ah kii kat dañ koo jur moom te yàlla nee moom man moom lam yalit ñu ne ah, loolu de doy na waar lam jëkka mooy inni abdullahi aatani al kitaaba wa jaalani nabiyyan wa jaalani mubarakan ayna ma kuntu ba tey daan ne nag ba jaamu bi yàlla laa nag wa awseeni bi salaati wa sakaati maa dumtu xayan wa barran bi walidati mu ni damaa dénk it may may jaamu yàlla tey topp sama ñaari waajur tey topp sama benn waajur bu jigéen gis nga ñu ko jëkk sama ñaari waajur lañ doon wax moom mu ne sama benn waajur bu jigéen bi ñu ko bu góor bi nag mu ne ooma ko kooku ma ngay gën a dencalu ci ay doomu yàlla ak yooyu wa barran bi waalidati yaay rek la fi am moo tax mu ne yàlla digal ma may toppatoo sama waajur bu jigéen mii képp ndax ooma wu góor nga xay lijjanti na ci ni amul amul yaay laa am amul baay lijjanti na ci ni yàlla juru ko ndax yàlla du jur te moom dañ koo jur lijjanti na ci moom jaamu yàlla la ñett yëpp dugg na ci ba noppi waxal boppam ñetti jàmm yooyu ko suñu borom defal ci ñetti béréb yépp salaamun alayya yow ma wulitu wa ma amootu wa yow ma aba saxiya yàlla mel ni ku koy bàkkoo ni leen daalika Iisa ibnu Maryam kooku na mooy Iisa eh, suñ boroom jàmm jooju defaloon na ko mbooleem yonente yi nag sax moo tax mu ni wa salaamun alal mursalina walhamdulilahi rabil alamin mbooleem mursalina yëpp yëpp yëpp ku ci ne defaloon naa ko jàmm jooju nga xam ne ñi mu fonk ñëpp ñu di gaayam daa fonk ba kenn du ko ci waat ñëpp la koy defal eh wiññi ko digal nu loo xam ni day tax nu mën a am jàmm ndax dafa digle salaatu ala nabi moom suñu borom wax ni moom yàlla mi ngi julli ci yonente bi moom ak i malaayikaam digal nu yéen na ngeen julli ci moom waaye bu ngeen julli ci moom na ngeen ci salmal parce que fi nu nekk dañ fay yittewoo jàmm te yonente bi boo ko defalee benn ñu delloo la ko fukki yoon ndax al jazaa'u min jinsil amal mu ni inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi waaye nag yéen moom fa wa sallimoo taslima bu ngeen jullee bu leen ci yam ndax da ngeen soxla jàmm kon ñaanal la ko jàmm ndax yonte bi loo ko yéene mu dal la su ngeen ko ñaanalee jàmm loolu bokk na ci lii indiwaat jàmm ci yéen moo tax mu ne yéen moom wasal yàlla moom dañuy moom moom malaayika yi la ñuy julli ci moom kese waaye mu ne yéen nag di leen ci julli da ngeen ciy boole di sëlmal ci moom di ko ñaanal jàmm ndax jàmm jooju ma delloo leen ndax benn boo ko jox ma delloo la ko fukk ndax aljazaa'u min jinsil amal nga xam ni dañoo digal salaatu ala bi ba noppi ndaxañ ci baat bu mu nu jagleel xaasatan ñun jullit yi pour nu loola bokk ci li nu may jàmm eh, mu mel ni tawasul la ca ndax danga ko jaare ci yonente bi ba tey boo demee ci julli julli yi juróom yi mu ñu digal nga xam ni moom lañu wax ni moom lañ gën a fonk ci yi ñuy pratiquer nii ci kaw bis bu nekk soo jullee julli bis bi dinga nga ci ñaan jàmm ci béréb bi sunna yi juróom-ñeenti yoon ñaan ci jàmm ci bérébu farata yi juróomi yoon ndax taaya ju jëkk ja di nga wax ni assalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wassalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihin nga xëy taaya ju jëkk jooju boo koy wax ak ju mujj ja bu ca ne dinga ci ñaan jàmm ñaanin wu yéeme nag ndax ñaan wi dafa am dafa am maani tawassul maani tawassul la am ndax day mel ni yàlla dafa xam ni yow mën ngaa nekk nitu ordinaire kooku mën ngaa ñaan yàlla te du mu mun la jiital ma mun la léegi yow jiitalal yoonante bi sallallahu alayhi wa ba noppi ci ñaan bi ba noppi moom ñaanal ko jàmm ba noppi soo noppee nga dugal sa bopp ci diggante bi mu jagaayu baax yi su ko defee ñoom bu ñuy buub si la nga leen ñaanal yóbbaale li nga li nga ci am asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu daa ni asalaamu aleyna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi saalihin yónente bi nga jëkk a teg sa bopp teg ci gaayu baax yi ka koy nangu si mën naa ñëw ne ah, yow de amoo solo waaye nag xawma nu ma lay def ndax fi nga dugg moom moom dafa xat daal di la yóbbaale sa sa ñaan nga am jàmm foofu xoola sette mu ñaanoon boobu moom la yàlla indi pour ñaane ko jàmm ci biir julli nga xam ne julli gu ne di nga ko ci wax ca juróom-ñeent yoon ci juróomi julli yi ci bëree bérébu sunna mu ne ah julli kat bu farata moo ca gën a foor taxtiimu salaat maanaam taxliil kalimatu taxliil bi ngay def pour julli gi jeex muy assalaamu aleykum nga yi farata la sax moom far ñaan jàmm ko terminé nga xam ne julli yu juróom ñaan jàmm moo ko terminé asalaamualeykum nga wax ko geestu ñeneen ñi wax ko jëme ci yow ku ne wax ko ku ne wax ko nga xam ne yàlla li mu gën a fonk ci jàmm yàlla yi noonu la ci ndëxëñee ñaanu jàmm pour pour rek maanaam bëgg ko rek pour rek ñu dund ci àdduna dund jàmm ndax nit mu bëgg da ko war a sàkku xoola woowu sàkku yi nga xëy jàmm yàlla gi mu ko gën a fonk ñaan jàmm kese kese kese kese la ndëxëñ ci biir ca taaya ja ñëkk ya ba ca taaya ju ngay def taxlil ci julli gi di si yewee ko baat jàmm nga ko jeexale muy asalaamu aleykum eh, ba tey booy dugg ci eh, bu ko defee nag eh, bokk na ci liy mayee jàmm bokk na ci liy mayee jàmm nag kon xam ngeen jàmm loolu moom lu kenn mënta ñàkk la luñ bëgg la lu yàlla yéene bindee fii la lu mu leen di defal la ca ña ko yeyoo waaye nag dañuy wax li nga xay mooy moo koy tax a am bokk na ci li tax am jàmm mooy nga dugg ci lislaam dugg ci diine dugg ci diine ndax suñu borom moo ko njëkk a wax wasalaamu ala man ittabaal huda la waxoon yonent yàlla Muusaa ni ko wax ko Firawna bi muy gund xataal nit ña di leen noggatu ba jàmm amul muy bànnoo Israil anarsil maana ba Israil wala tu asim wala tu asibhum la wax wasalaamu ala man ittabaal huda ku bëgg a mucc mu ni ko dangay ngay da ngay da ngay da ngay da ci diine yàlla ji kon dugg ci diine bokk na ci limay may jàmm ba tax na sallallahu alayhi wa sallam ñoom najaas yi ak xiraqlu ñoom ak góor euh, yi nga xam ne ñoom la jamononte woon te di leen woo ci diine mu xaw xis ñoom ñoom ñëpp kum cey woo li muy jëkke mooy bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasul abdillahi wa rasulihi ila diw daal ni wasalaamu ala man itabal huda su waxee yow la muy wax ba nopp ni aslim taslam ni la duggal ci lislaam nga mucc duggal ci lislaam nga am jàmm noonu la doon wooyee buur yi loolay moo lay xamal ne lislaam kon luy muccale la leetaram rasaa elimin yi mu bind yépp boo ko liiree ku mus di woon dana ca boole loola aslim taslim bu dee ñaar mu ni aslima taslima dugg leen ci lislaam ngeen mucc kon diine jàmm la maanaam islaam bokk na ci liy mayee jàmm maanaam nga dugg ci diine te di ko dund te di ko dund muy dëgg ci yow ba tax na yonente bi comme musaan bi woo loolu la lay wooyee dugal ci lislaam mucc dugal ci lislaam nga am jàmm eh, ba tey bokk na ci lii may jàmm nga di ko ñaan yàlla ci turam wu sell woowu di assalaam assalaam nga di ko jëfandikoo ci système bu ne di ca ñaan jàmm ndax nit lu mu bëgg da koy ñaan ka ko am te du ko jeexal muy yàlla te di ko ko ñaane ci tur wi nga xam ni maanaam léegi tadammana bi maani eh, eh, eh, salaam nga xay maanaam salaam la ndëxëñ ba feese ko léegi nga nga nga nga ngay def tanaawul ci tur woowu di ko ko ci woo dalloo ko di ko wooye yàlla yaa salaamu léegi bokk na ci li mayee jàmmet nga jël melaw yaxyaa moome mu ko defalan nam melan ba am ko soo ni am jàmm nu meloon suñ boroom nee na wa kaana taqiyan wa baran bi waali bi waalidayhi walam yakun jabaaran asiya nee na yaxyaa dafa ragaloon yàlla topp ñaari waajuram te nekkul woon ab agresseur maanaam daw tooñ kenn defal kenn dara lu jur jàmm nitu jàmm la moo tax yàlla am ko jàmm wa kaana taqiyan wa baran bi waalidayhi walam yakun jabaaran asiya ñett yooyu ku ci nekk danga am jàmm ragal yàlla lool fonk sa ñaari waajur lool ba noppi maandu ci sa digganteeg mbindeef yi doo indil kenn ay loolu la yax yaa meloo woon de suñ borom ni suñ borom may ko jàmm kon loolu bokk na ci système bi mayee jàmm waaye moom saa boo nekkee agresseur di tooñ di def yenn yi doo am jàmm ndax ataa yonent yàlla Moussa ba ko nattu ba dalee ba bakkan dem ci loxoom sax atal tuminhum nafsan fa axaafu an yaqtuluuni ndax boo defee lu dul noonu rek sam xel dootu dal dama an kat daa rey nit moo tax moom fii ne sam xel dala tut ndax toujours yaa ngi defe ne ñi nga def lañ lay def loolu boo tëree doo nelaw moo tax toujours boo bëggee am jàmm del jàmmale eh, kon bokk na ci lii mayee jàmm nga jël melow yaxyaa woowu ragal yàlla fonk sa ñaari way jur ba noppi nag bañ nekk kuy tooñ bindee fii ba tey bokk na ci nga meloo melow yoon si yàlla Isaa moomu ñu la waxal ni yàlla may na ko jàmm ansaanu meloon wa awseeni bi salaati wa sakaati maa dumtu xayyan wa baran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya nee na yàlla daf maa dénkan may jaamu yàlla jaamu yàlla nag bu ñu koy tudd ci alxuraan toujours julli la ñuy publier nga dégg ko waaye xeetu jaamu yàlla gu nit nekkan rek saatu lañ ko daa wax ñoom donte du woon gii mu ne yàlla dafa ma dénk may sax ci jaamu yàlla tey joxe ci sama alal asaka ak di dimbali jaam yi feeg may dund ak di sama yaay moom amul baay moo tax moo tax mu wa baran bi wàllu si ba noppi mu ne yàlla nag booleel na ma cee jox ma jikko yi nekkuma nekkuma maanaa ab tooñkat du ma du ma agresseur man duma ma def bind na ma may ku maandu sama digganteeg bindee fi du def kenn naka sul tax it def na ma may ku du ma texee di ndekete agresseur du texe walla mu yekkun jabaaran shaqiya nga xam ne jabaaran moom foo ko fekk shaqiya rek du am jàmm fa muy mujj du baax moo tax mu ne man nag yàlla bindeewu ma noonu li mu ma digal daal mooy may jaamu yàlla fonk sama yaay tey joxe ci sama alal te maandu ci sama digganteeg bi yi loolu la Isaa bi mu ëggee bi bi koy yàlla may jàmm qualité boobu moo nekkoon ci moom loolu bokk na ci lii may jàmm ba tey bokk na ci lii may jàmm nga roy yonent yàlla Yunus yonent yàlla Yunus dafa am catastrophe bu ko daloon ba mu dugg ci luy nuru ay daanu ci géej gi am ngaaka ko ko dem moom ca ndett la xamul kañ la fay jóge mu lëndëm lool loolu ay mënu koo weesu ay mënu koo weesu amul dara moom am ngaa kaa la war na tëdd ca ndettul géej mu lëndëm këriis tàng lool déggatoo dara ba noppi faatu woo loolu ay la lu ko ca génne al istirja mooy dellu ci yàlla mu toog ba mu yàgg mu ni laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ngaa ka wane rëg rëg rëg rëg rëg ca buntu bopp tefes ga mu ni ko gëq ci suuf mu daanu xolli ko ba xong coy bu ko ngelaw lu uppee mu mel ni lañ seen nga koy jam bu ko weññee dalee noonu waaye gis nga bu la yàlla defee la jàmm fi saasa yàlla saxal ci moom lu mel ni naajo gar gar luy law lu ami xob mu mu law ci kawam muur ko ba ngelaw lu dootu soloote ci moom weñ dootu ko mat mu tëdd fa ba wér bam mu wéree mu dellu ca ña ko yàlla yoon yi woon mu leen di woo ñuy bañ mu woo leen ñu nangu ñu wuyu ko mu toogaat fa ay at ba doxal mee soob suñu borom dellu taxat damul xoolal fa mu nekkoon ak fi mu mujj nga xam ni kon bokk na ci li mayee jàmm nga roy yonent yàlla yunus ci istirjaabam mu def moo boo ko amul nga nga ñaan ko yàlla eh, su ko defee gis nga noonu mu ko defee moom suñu borom daal di koy wéral mu dellu ci ngay xamee nag suñu borom ni dara ump ko ci ci ci yunus moomu ndax ndekete woo ñu ko yàlla yónni woon yàlla xam na population ba nañ toll arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziduun nee nañ nee na nag ñi ma ko yónni woon ci ay nit population bi téeméeri ju euh, téeméeri junni lañu woon yu topp boo demee ci tafsir yi nee nañ téeméeri junni ak ñaar fukk juróom noo ca toppoon nga xëy yàlla ndeke bu la yónnee ci nit sax xam na ñaata lañ soo dee sëriñ am ami na ñaata lañ soo dee borom kër soo dee soo dee soo dee yàlla moom ñëpp la euh, bi la xam ni ñu toll kenn ku ne la nga ci yilif xam na ñu toll boo dee yonente wala nga def sëriñ ci Yunus la ko wonee def ci appel pour nit ñi def ci attention arsalnaahu ilaa ci alfin la wax aw yaziiduun yaa daan ni ma yónni waat ko mu dellu ca ñaa ko yónni woon te te nañu toll woon téeméeri junni lañu woon yu topp tafaasir yi nag ñoo ñaar fukki junni ak moo ci toppoon nga xay nitu Yunus loolu la woon téeméeri junni ak ñaar fukki ak juróom mu delluwaat ci ñoom woo leen ñu wuyu ko mu dundaat fa doxal fa maison suñu borom ci ne ko yàlla bëggee ginnaaw ba mu génnee ci ay wutar woowee te la ko ci génnoo ma istirjaa boobu ñaan googu kon ku ko bëgg nga ngay roy yonent yàlla yunus boo ko amul soo ko amul nga roy yonent yàlla yunus di ko ñaan yàlla ci xat-xat ya jar na sax ngay jël loolu mu ñaane woon ci bépp xat-xat boo ne pour génn ca laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin eh, bokk na ci lii mayee jàmm itam ngay attewoo nag sariya attewoo diine alquran walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab la suñ borom wax suñ borom nee na gis nga li atte yi ma tëral bu ngeen ci doon jaar am jàmm ci ngeen koy jële de ci la de beneen atte yu ngeen du atte woo rek léeg-léeg am lu ca fuset lu dul jur jàmm waaye walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab nee na yéen ñi am xel yu baax tey dund te sell te gëm na leen leer ni jàmm ji ngeen di wër mi ngi ci ngeen atte woo li ma li ma wàcce ku ko ci deful nee na da ngaa da ngay perte yaa ngi ci tooñ am na fu muy ni ulaykum zalimun ulaykum kafirun ulaykum fasiqun bokk na ci li maye jàmm kon nga àtte woo ci li yàlla nii bu mbir xewee nañ ko ca àtte suñ borom a ko wax nag walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulul albab nee na li ma digle muy qisaas ku dagg nopp ñu dagg sa nopp ku dagg sa loxo ñu dagg sa loxo ku jam ñu jam la ku rey ñu rey la su ngeen ko doon def di am jàmm su ngeen ko doon def rek di am jàmm ndax kenn ku ne da nga naan ah wattu wattu ko rey de boo ko reyee rek day bu saal di nga xam ne sayoon nekku si waaye bu la fonteel defal defal li ngay def rek du mujj fenn ah mooy indi ay moo tax suñu borom ni walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab bokk na ci li jàmm kon mooy ataxakum bi diin eh, bokk na ci li may jàmm itam ñi war a digle ñi war a digle lu baax di tere lu bon ah, yore capacité ba yàlla sas leen ko ñu bañ a nëtër ci ci mbir yi buñ gisee naka su dul noona ñu àddu ca da ca wax ca bañ caa maandu yàlla nag nee na ci ni mu waxee ci aaya bi mooy digle moom ñëpp yeyoowu ko ndax am na ñoo xay seen capacité yëgu ca waaye nee na ñi nga xam ne yàlla def nag ñuy ay sëriñ wala ñuy ay kilifa wala ñu am baat bokk na ci li may jàmm buñ gisee naka su dul noona ju ñuy def ñu wax ca suñ gisee lu su war a def te ba ñu wax ca te bañ caa nëtër wala takun minkum yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna anil munkari wa ulaa'ikumul muflihuun na am ci yéen la wax miin minkum min arfu tab'id la mooy borom mu bari nga am ñoo ca jël na am ci yéen ñoo xay seen capacité yegg nañ ci seen kilifté yegg nañ ci buñ gisatee naka sudul noonu nañ cay teel a wax di ko tere bu fekkee luñu lu ñu war a def te defuñu ko nañ cay teel a wax di ko dégle su ngeen ko defeet loolu mën naa bokk na ci li lay mayee jàmm mooy ñi war a wax di wax ah, avant ay am kon loolu bokk na ci li may jàmm moo tax yonente bi ni ma min qawmin amilu bil maasi wa fihim man yunkiru alayhim walam yafalu ila yusuku yusaku an yabasa allahu alayhim iqaban min indihi summa tasalunahu fala tastajibu lakum nee na saa boo xamee ni ay nit lëkk nañ cim réew wala ci dëkk wala ci béréb am fa ñuy def na ko sulul noona wala ñu maase ci di ko def te am ñu ko mën a dindi ba noppi ne ca pat soo watuwul aw ay dina fa ñëw woo xam ne ñëpp a cay jël seen wàll te ay wa man naa law di law ba yegg foo xam ne ña war a ñaan bu ñaanatee yàlla du leen wuyu de du nangu day mel ni lu taa dindi loolu yonent bi saa sallam moo ko wax moom mi nga xam ni lay gis fu sori nee na naka sudul noona bu leen ko xeeb bu leen ca daniirlu fu ngeen ko fi gisatee ña ca war nañ ca teel a wax lu ko mooy li ma ci séentu mooy fu muy am bu yàggee aw ay dana fa ñëw te bu fa ñëwee ña war a ñaan bis bu ñu nee allahuma sum dorom du wuyu de day dem bañ naan ah pexe amatul xanaa dañ koo yëgul ñu ne ah seen jiw ñaan na jàkka ja jàng nañ lii jàkka jàng ne waaye mbir daal xam naa yi doy na waar fekk yonent waxoon na ko fekk daa law di law di law ba ba ba jafee dindi kon bokk na ci li mayee jàmm ñi war a wax bañ a daniiru tey wax ca bam jotee ba tey bokk na ci liy maye jàmm maanaa am istiqaama am istiqaama mooy jub ndax àjjana sax suñ borom bi mu teewalee jaam ñi ca bunt ba ba mu ñëwee di nuyu leen gis nga ah, bismillaahi rahmaani rahim li mu am am am am solo suñuy dugg àjjana duñ ñu ko duñ nu ko rasuwaare booy dugg ci kër fii wala ngay naan looy def bismillaahi ngay wax waaye booy dugg àjjana moom baatu salaam lañ lay rasuwaare sun boroom day yebal am malaayika mu ñëw ni assalaamu aleykum tibtum fadxuluha xaalidin assalaamu aleykum tibtum fadxuluha xaalidin yéen de yàlla dina leen defal jàmm joo xëy day yaatu ni bayax ajanaa ngi ñu ne dugg leen ko te am xel mu dal te bu ngeen fut génn ngeen xam ne dootu leen ko génn nga xëy baatub salaam boobu dañ leen di sarmee pour ñu dugg gaa ya daal di dal xel lool mu ni waaye nag wa am taasul yow ma ayyuhal mujrimuun yéen ñu daan tooñ bokku leen ci beru leen génn leen ku daan tooñ génnal bokkoo ci ku tooñ du am jàmm wa am taasul yow ma ayyuhal mujrimuun moo tax mu ni salaamun bu ëllëgee qawlan waaye da cay boole wa am taasul yow ma ayyuhal dugg leen àjjana jàmm rek ngeen fii am ñu ne tekk mu ne eh, yéen ñu daan tooñ leen bokku leen ci kon kuy tooñ du am jàmm wa am taasul yow ma ayyuhal mujrimuun yéen ñu daan tooñ bokku leen ci kon tooñ dana bokk ci luy xañe jàmm ñu ni kon nuñ leen di xàmmee nan la ñuy xàmmee ña daawul tooñ te taxaw fa ak ña daan tooñ mu ni bat su istiqaama la ñuy takk bat su istiqaama comme ni ngay gis ni yor bat yi ni nga xëy dañoo doon dara ci mbir mi noonu ngay gisee ñi daawul tooñ ñëpp am bat su istiqaama bat bi mooy lan mooy boo toppee aaya boobu alama ahdi ilaykum yaa bani aadama laa ta'budu sheytaana innahu lakum aduwwun mubiin wa an ubuduuni haa siraatul mustaqim haa siraatul mustaqim bu ko defee mu siraatul mustaqim boobu ña ca jaaroon dafay nekk mandarga ci ñoom mooy seen bats ci nga leen di xàmmee ak mujrimoon yi moo tax suñu borom ni wa am tasur yow mi ayoxal ku ca bëgg a tagaanu bu ñu xoolee doo am batsu istiqaama ci sa jë nga xam ni pexe amul nga soppeeku am foo jëm li ko waral mooy da mooy mooy ayoxal mujrimoon tooñ gaa tax tooñ yàlla tooñ bi ndéefi yal nañ yàlla musal bokk na ci liy waral jàmm itam euh, na ci liy indi liy indi aw ay mooy maanaat ba tey gis lu dul noona bañ koo tereem alquran wax na ko lu ayna alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa ibni maryam dalika bima asaw wa kaanu yataduun kaanu laa yatanahawna an munkarin kaanu yafaluun mu ni banu israil am na ay wu daloon te mi ngi juddoo ci saa tere leen ñu të Daawuda tere leen ñu të ndekete tëgoogu di def naka sul noonu ak tooñ la daalika bimaa asaw wa kaanu ya'taduun lu ñu ni lan mooy tooñ ga tooñ gi leen ay wa lu ko lu leen ko yóbboon mu ne kaanu laa naa yatanaahaw an munkarin fa'aluuh moo doon seen problème mooy dañ daan def naka sul noonu ba ba pare naatal ca ne pat lam ca jublu nag ci loolu mooy bañ leen teree napp ci géej gi bi su samedi te ñu lànk suñ borom lu mujjee ak ñoom koonoo xiradatan waaw yonent yàlla daawut ay nitam la waxan loolu yonent yàlla isaa moom ay xanaasiir la leen defan moom ba ñu të bañ leen teree ñu ñu bañ kaanu laa naa yatanaaxawna an munkarin faaluhu dam leen ca tegan mooy dafa leen def ay xanaasiir ba mu ñëwee nag ña ko deful woon diglewuñ ko ak ña daan tere defuñu ko ba noppi di ko tere yëf ya xuriwu ci kenn dara waaye mbooleem ña ko daan def ak ña ko daa digle maanaam ku ca nekk masxu ba dal na la eh. moo tax suñu borom waan jay na lazina yan ani suu yan xaw na ani suu yi waax na lazina zalamoo bi asaabin ba isin bi maa kaanu yafsuquun ba ba mbugal ma ñëwee suñu borom noonu laa def ña ca doonul dara dama leen caa muccal ña ca doon dara ma teg leen mbugal ma waaye nag ña ca doonul dara te bëggaluñ leen dund nañ fitna dund nañ fitna ndax nekk ki nit bañ nekk ci wenn ay wi boo ko defee du mën a neex moo tax ñu ne ittaqoo fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassatan ndax boo nekkee maaritali ak i ba mu yàgg gi yëpp nekk ay ay golo wala ñu nekk ay mbaam xuux xam nga yow di nga am problème fitna fitna dana ca juddoo moo tax moo tax bam nag ñu ci ku deful lu lu tax nga ñàkk jàmm doo ko ñàkk waaye boo dëkkee ñu ko amul doo yam ak ka fu jàmm ne bayax eh, yonente bi nii la taamurunna bil maaruf aw la wala tanhuuna mun munkar aw la yuusakanna allahu an yabasa aleykum iqaaban min indihi suma tad'uunahu fala tastajibu lakum da dangeen digle lu baax di tere lu bon am ñu ko fi taxawee mu ñor leen ña ñuy digal nangoo jëfee ña ñuy tere nangoo bàyyi wala su ngeen ko deful la ma cee séentu mooy ja aw ay dina ñëw woo xay bu ñëwee du neexatuwal kon bokk na ci lii maye jàmm mooy jëfe ndigalul waaju baax ak bàyyi ay tereem eh, loola tax yonente bi ne man raa minkum munkaran fal yuxayiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisa fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika ad'aful iman mu ni kon nag waay waay waay waay ku ci doxati ba gis ba gis de gis nga jamono bi yonent bi yonent bi awite woon na jamono bi ni mu demee nga xam ne leg léegi doo dox ba gis waaye dañ lay won te lañ lay won du wér bu sukkandiku ci lañ lay won de ndeg lañ won lu la loo yi demeewul noonu nekkul de ay falsa la moo tax ba muy wax mu ni man raa ku doxati ba sa bët may la loo xam ne naka sudul noonu la na ko jéem a dindi ci sa ci sa sa doole ci sa doole sa loxo waaye xoolal tolérance bi mu ci dugal ci addis boobu na ko jéem a dindi sa doole su ci yemoon képp ba ba ngay dee mbaa ngay rayee da nga cay ne rek waaye mun la soo ko su caw ay naree am mënoo ko bàyyil ndax bëgg jàmm man raa amin ku mun kanam fa la yuxayiru bi yadihi su fekkee aw ay du ca am waaye su fekkee bi nga koy jéem a dindi ci sa loxoom nar naa juru ay baal ndax jàmm gënu ay lu ca sës mu ni fa bi lisaanihi léegi jëlal sa kàddu ngay wax su fekkee yaa ngi wax traag traag yi commencé ñëw mu nar a indiw ay mënoo ko yonent moo bëgg jàmm mu ni léegi su boobaa bàyyil bàyyil ndax comme wax ji rek mi ngi nar a juru ay bàyyil dara jaru ko ci àdduna fa bi lisaanihi fa in lam mooy boo ko sartu mënoo ko mooy wax ji bu naree indi ay mënoo ko bàkku lu fa sës mu ne nanga naqaroo ci sa xol ñëkkal ci sa kanam ba ña koy def xam ni yow dootu yow ak ku koy def su ko defee boo dee kilifa guñ mënta ñàkk bu ñu ragalee danañ ko ba wala ñu xam ni buñ ko bawlu seen àdduna lu neex ndax yow kenn munu laa ñàkk léeg-léeg lu mel noonu dina jële ci ah, ma man de nangam moom xaw naa koo bëgg kii waaye sëñ bi laa ragal ndax ni ma ko gisee nii moom xam naa kuy def loolu moom dootu dootu yow ak moom moom nangam nag am na ñu bari ñu bàyyi lu dul noona te xam ne neexul neexul diwa tax ndax am na fu mu féete foo xam ni nii nga ko gisee nii muy continuer moom yow loolu mënoo koo dund il faut nga normal rek ndax nga am jàmm loolu day faj de maanaam naqaroo ci sa xol nga xëy doo toléré kenn ku nekk ci lu dul noona waaye su fekkee bu amee ku def lu dul noona bu ñëwee nga di ko félicité wala nga di ko encouragé nga jàpp ne li mu nekk daa baax day gën taañaañal mais soo dee nitu dëgg mu ñëw nga xam ni kii mi ngi ci lu dul dëgg ba nga xam ko ci moom nga dóor ko benn bi ba mu xam ni yow doo doo doo mën a fréquenté koy mel noonu bu la mënta ñàkk dana dellu ginnaaw moo tax mu ni xal bi qalbihi loolu arme la ba tey waaye xoolal addis bi ñetti ñetti solution jël na ko pour bëgg jàmm na ko dindi sa loxo bu ca aw ay naree am mënoo ko bàyyil bu ma boo ko mënul nga ngay wax jëm koo dindi bu ca aw ay naree am mënoo ko bàyyil ba ca mooy na la naqari maa ngi ah a jeex ah waaw eh, abi saalabata mu ne nag kañ kañ ngay dem nag ba léegi kañ ngay dem léegi yow bay war yow mi waroon a digle nga sañan nëtër nag léegi loo gis nga ne ca pat dootoo digal kenn dootoo tere kenn kañ nga koy sañ abi saalabata al xushti dafa ñëw ci yonente bi salaa sallam yonente bi salaa ni ko damaa bëgg nga leeralal ma aayow aayow eh, laa yadurukum man dalla isa htadaytum suñu borom dafa wax ni nit ki su normalul jubul dëng yow du la wàññi dara ndeem jum ga contrôleur sa bopp rek sa yuruf aaya bi day mel ni loolu la ci wax mooy yow daal fexeel ba baax fexeel ba tega ci yoon ku mel neneen nag moom la concerné mu abi saalabata loolu la jàpp tax muy laaj yonente bi ni ko kañ laay saña saña nëtër ci li ñuy def yaa aba saalabata mur bil maaruf wan haanil munkar fa ida raayta suxan mutaan wa dunyan muusiratan wa hawan mutabaan wa ijaaba kulla zi ra'yin bi ra'yihi fa alayka bi nafsik inna min waraikum fitanun kaxat il lay lil muslimi lil mutamassiki bi ma antum fi fi fi bi ma antum alayhi ajrum xamsiina qaalu ya xamsiina minkum qaalu ya rasulallah bal minhum qaala bal minkum li annakum tajiduna ala alxayri awaanan wala yajiduna awaanan wala yajiduna alayhi awaanan yonent bi ni ko abi saala bata mu ni ko amun ah, ko dellu digle lu baax di tere lu bon bul dellu ginnaaw bul bàyyi bul yokkat moo la war de soo demee nag ba gis ñi ak dëgër bopp ñëw na bu dee lu ñuy joxe mënutoo wax kenn ba mu joxe dërëm bu dee jikko ju bon mënutoo wax kenn ba mu dellu ginnaaw ko wax mu ne la man saa bopp laa gëm bu dee ak bëgg àdduna mënutoo cee génn kenn bu dee melokaan mënutoo génn kenn nit ñi mel ni ñu maamu far benn nga jéem jéem mu wër la ni ñi bëran toppee dañ lay tardeel fa alayka bi nafsik wa daa ankal awaam su boobaa dénk naa la sa bopp nag fawar si tànk ko ci istiqaama te bàyyi nit ñi dañ lay tardeel su jamono eggee foofu waaye boobu jamono yàlla buñ cee yegg moo tax yonent bi daan na ñaan naan laa yaati zamaanu di ñaanal saxaaba yi naan am na buy ñëw yàlla bu mu leen fi fekk am na jamono buy ñëw yàlla bu mu leen fi fekk yàlla bu ngeen ko fi fekk mooy buñ demee ba loolu am ba ki deseeg mbaax koo concentré wu ci mbaaxam gelu nëtër xam ni kenn mënatul ci nit ñi dara yonente bi nee na dina sa ami de mu ni waaye feek amul wàcce kenn kenn digal ak tere wàccagul kenn digal ak tere wàccagul kenn eh kon loolu loolu nañ ko bàyyi xel bu baax eh, bokk na ci lii indi aw ay cim réew nag ba tey alxarbu mooy li mel ne xeex xare toj taal moo tax boroom diiwaanul insha wax ni alxarbu tuuqiwul aalama fi usrin wa dayqin wa tusaabibu ataaziba wa tankiir wal asar lam yaslim min darariha ahadun wa tajlubu wa tajl wa eh, tajlubu xalaa alxaajiyaat wa tasiiru si'raha ad'aafan mudaa'afatan wa tasrifu nnaasa an a'maalihim alxayriya ilaa qitaali ba'dihim ba'dan wa xar wa tadmiiri buyuutihim wa xarqi masaani'ihim wa ilaa xayri dalika min almasaa'ibi ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية borom diwaanu IMSA dani xeex day ak toj ak ak ak ak taal ak yàq dana indi aw ay cim réew dana indi xat-xat dina indi jafe-jafe dina indi waxantelu bon dina indi mbugalante dana indi defanteelu naqari dana indi tamit ñuy jàpp ñu baree baree bare bari di leen xañ seen liberté kenn du ci mucc nag mu ne nag ñun jàppul nag bu defee ne dara tax ñu mucc ci fu fa ñu nekk la leen ay wa di fekk ndax li jënti aajo yi day daal di daal di seer saa boo demee dematee ci bitig ba di jënd gis ni lii ñu doon def moo waral ma jënd lii ma jënd lii njëg yëpp seer paas yi yokku bitig yu bari tëj marchandise mi seer lu ko waral mooy lañ doon def di law rek xataa bu amoon ci meneen réew moo dendal sax loolu da nga ci jël sa wàll di nga dem ba mu wër la ni nii ngay dépassé woon nii ngay dunde ay yi nga jafe-jafe yii xeex bii moo ko waral. kenn xamul fu mu yem taamu leen Tawfekh production lakk bii mbay mu néew mii amut kenn amut kenn amut am na béréb yoo kenn ñu moo faa dem tool maanaam léegi tool yëpp raaf na ndax ku fa nekk euh, musiba man moo ko waral te loolu lépp mu nga juddoo ci xeex kon bokk na ci li li aw ay cim réew maanaam lu mel ni xare ëpp naa def ndax saa boo ko dee xeeb lu mu la sori sori bu yàggee nga jël ci sa wàll même bu la ci sa deret tuuruwul jàpp la ci tëj la sa poos moom dina ko yëg bu baax ba nga yëg ni nekkatoo ci jàmm moom ndax lisim bi ngay dund metti na loolu lu yomba wax la fii lu fi yomba wax la eh su ko defee nag moo tax sëriñ tuubaa sëriñ tuubaa radiallahu taala anhu wa nafaana bihi wa qaala lahu laahu lahu maxtaara lahu kera biñ ko tooñee génne ko ci ay këram ak njabootam ci kaw tooñeel indi ko fii ci ndakaaru dugal ko ci néeg bi ngeen di dégg mu jànkonte faak lam fa jànkoonteel ba xalaatam yépp jëm ci xeex moomu maanaam jàmmaarloog noonu yi wut ay ngànnaay te am kilifa moom sëriñ bi am kilifa ndax yonente bee kilifaam nañ roy yonente bi ca noona ba ko yonente bi yëgee ci baati nu mu def ñëw ni ko ahmadu bàyyi loolu ahmadu bàyyi loolu ba muy ñëw sirru sirru ismul ma almaahi bi la indaale turam bi ñuy wax al muhammadul maahi moom la indaale nga xay bi mu ko ko waxee dafa effacé mbooleem lu ko naqari woon ba muy xalaat loolu moo tax mu ni ida dakartu dalika almabita wa dalika al amira wa sabuta taaraf ila aljihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba an il maahi yonent bi moo ñëw ni ko ahmadu loolu bu ko def nga xam ni yonent bi yàgg naa yéene senegal jàmm sëriñ Tuubaa yàgg naa yéene Sénégal jàmm ndax bu ko defoon rek maara detaali waaye yonent bi moo ko ni bul ko def moo tax mu ne zabba anil maax yi te li ci gën a garaaw mooy turu turam bi ñuy wax almaax yi nga xam ni lu mu ci bëgg a far lu ne du ko wax ñaari yoon sirru boobu la làmboo bi mu ko koy wax si nga xay bi mu ko ko waxee lépp dana gërëyif jóge ci sëñ bi automatiquement kon loolu tere lu mel noonu ñoroon na yonent bi waaye ndekk nit bu amee kilifaat bu ñu ko teree lu mel noonu luy jur ay ci réew da koy baax sëñ Tuubaa da koo bàyyi waaye bi ko bàyyee ñoom bawuñu ko ñu ko dañoo continuer rek ca lañ nekkan mu ni kon naa changé nag méthode bi ni kon ini inni ujahidu bil mi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhayminu saahidu mu ni léegi naa naa naa jihaat ak ñoom kon ci ragal yàlla ak xam-xam ak yare ragal yàlla ak xam-xam ak yare boobu moom jàmm dina ci walu dégéej lay doon day mokk te doo dégg doo dégg dëbb ba ci loolu la jaare méthode boobu la jaare ba lijjanti li muy lijjanti lépp ba def nit ñi ni mu leen di def te damul kon teel naa xam ni moom loolu bokk na ci liy indi aw aw ay cim réew eh, te sañoon na ko de ndax ndax wa in aaqabtum fa aaqibu bi misla uqitum bihi wala in sabartum nag la yonent bi ñëwee la huwa xayrun lisaabirin buñ la tooñee tox toxal la def la loo xam ni mën nga mën nga caa def dara lu bon bon aayul pour nga fayu waaye boo mu ñee lay gën boo mu ñee lay gën a jur jàmm sëriñ bi nitu alquran la lam njëkkoon a nar loola alquran may na ko ko mais sallallahu alayhi wa sallam indiwaat beneen ci alquran wala in sabartum la huwa xayru li sabirin mu muñ en même muñ ba noppi nag léegi ni baal naa leen toppatuma leen dara ndax nit xam nga mën nga ni dootuma ko def dara ba noppi naqar wi ne ci yow waaye sëñ bi dañu afawtu anil aadaay turran ni wa ci man nafaahum li xayri sarmara nafs asabu jéggal naa leen lu tax nga jéggal leen mu ne xanaa yàlla mi tax mëna luñu ma dara njukkale naa ko yàlla mi tax mëna luñu ma dara baal naa nga xam ne afawtu jooju ñiy gëstu ci mbirum sëñ bi bu fekkoon fekku ñu ko ci xasida yi boobu tuuti di nga gis ñuy def ay plainte def recours pour pour jéem a am nañ def ak tubaab bi waaye sañoo ko ndax soo soreetuñ la sëñ bi noonu la jégal na leen di kenn dara muy jàmm ju law ju kenn xamul fu yem te moom borom mbooloo la borom mbooloo bu fekkoon am demewul noonu dana waaye sëñ bi ku am tolora bëgg jàmm la fi may jeexale am na jaraaf yu nekkoon njàmbur sëriñ Tuubaa yebal fa ab seexam bu ñuy wax si Ibrahima saar pour mu sanc fab dëkk moo xam mox moom la mox mox la wala benn ci dëkkam yi waaye ci foofu si njàmbur la jaraaf ji ni ko doo fi sance ndax da ngeen fi tasaare seen murit gi du fi ame gàntal ko gàntal yu méttee méttee méttee métti ba mu dem ba yàlla dogal moom mu folliku ba toll ci ami jafe-jafe ba toll ci gàttal maanaam torox di dund aw ay dégg sëriñ Tuubaa xéewal ngay sotti ko ca njaareem ci saahir ak ci baatin mu ne naa dem yalwaani ko ndax pexe amul fa njaamur ñëw njaareem di yalwaan si sëriñ Touba sëriñ bi ni ko jàkk sëriñ Touba bu la ko see gis du la fàtte boo boo def taalibeem nag foo ne xamal ni xam na la boo ko na nga bàyyi xel loolu mais bu la xësee gis ngay keneen it la gisaatee xam la ba ñëwee sëñ Tuubaa woo Cheikh Ibrahima Sarr moomee mu doon gàllankoor ca sanc ba ni ko ndax jëmm ji xam nga ko Cheikh Ibrahima saar ni ko ku xool ab diir ni ko moom de day nuru jaraafi njàmbur mu ni ko nuru ko day moom waaye jël ko yóbbu sa kër boo demee nga teral ko loo man boo demee nga teral ko loo man te moo ko doon wax naan du ngeen fi sanc ci njàmbur gi ndax du ngeen fi tasaare seen murid gi jam ba torox ñëw njëram di yalwaan sëñ Tuubaa woo kam ko defal ni ko yóbbu ko sa kër boo demee loo man ci teraanga defal ko kooku xam nga ni ku ne woote na jàmm dana yomb dana yomba xam zeynul abidin ali ibnul huseyni kilifa la woon gu bari mbooloo di sëtu bu yonent bi saa sallam Fatima moo ko jur dafa jóge woon këram di julli ci jàkka ji romb benn kàccoor mu saaga ko wax ko lu bon ay taalibeem dégg ko fàq seen yat ñëw pour duma waaj sëñ Abidin dégg ko daal leen euh, Alioune daal leen koy tere ni leen bàyyi leen ko daal di koy woolu mu ñëw mu summi mbu mu baax may ko ba noppi ni ko nag li nga doon wax ci man am na lu bari lu ci des lu ko gën a garaaw danga koo xamul bu la yitteelee ma wax la ko boo lëggee booy wax yegg ca daal ni taalibe dajale leen ko 5000 alfu la wax boo demee ca mbind ma dajale leen ko 5000 jox ko ko ñu dajale ko 5000 jox ko ko mu génn daa mujj dem a dem a dem ba mujj mu bokk ci taalibe yi Seynul Abidin kooku jàmm moo ko moo suñu borom ni idfa' billatii hiya ahsan fa idaa llazii baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyyun hamiim gis nga kii indiw ay léeg-léeg jàmm dana tax mu mu mu soppi ay wa ñëw ci jàmm ci jeexal nag sëriñ Touba waxoon na ñi mu bokkal Maam Mor Anta Sali bayit woo xam ni ci bëgg jàmmuk sëriñ Touba feeñ na ca bayit wa daf leen ni jamaalukum ilmun wa saayun wa adab fa laazimooha yun fa ankumul wadab yéen day seen taar mooy jàng ba ne ba ni ar fees del la xam-xam nangoo liggéey ak tarbiyewu mooy seen taar de mooy seen taar waaye xam nga bu leen di nangam mooy sa taar te waxu la li dul sa taar ba tey du sotti Sëñ Tuubaa kenn du moom mu bindaat beneen bayit ni ko jamaalukum ilmun wa saayun wa adab laa jam'u fiddatin wala jam'u zahab gis nga seen taar nekkul ci dajale xaalis ak matériel nga ne ah ndax wax na la lii sa taar wax la li nga xay moom wattu ko bul ko caakaayoo soo nekkee ci li nga am mooy sa taar loola fekk la ci dara newu ci ndax xul man harama zinatullahi lati axraja li baadi wa tayyibati min rizq jullit sañ naa am lu ne waaye day am kook moom dañ koy nawee du loolu moo tax sëñ bi ñu leen jamaalukum ilmun wa sa'in wa adab falazimuha yunfa ankumul wadab ñu gis baatu wadab boobu nag wadab bi mu daaneele muy luxa muy luxa jafe lool mag ña werante ca nga baal ma sax nag mag ña am ca nuñ ca béejoo daal ñii ni baat bi du arab am ni ñi ni arab la jamono bi daa bindoo nun di wax di tudd maam bi jàmbur wóorul am ca ku ni baat bi arab la ñu ni ko eh, du arab ba wax ja bare ñu yóbbu ko sëriñ Touba sëriñ Touba xool ko nii leen lu mu doon ñu ni ko wadab bi ci lañ werante ni ajam la du arab sëriñ Touba ni leen baat bi arab la dafa luxaa ñu ni ko lu muy firi dégg na ngeen déglu bëgg jàmm ak sëriñ Touba de ak bañ gum bañ nit ki amu ay lu muy firi sëñ bi ni leen ah dem leen ci mun jit mun jit ngeen xool ko ca mooy dictionnaire boobu nga xëy ci la ñuy xoole baat yi ñu dem ca mun jit wër ko wër wër wër wër ko suñu firim ñu ñëw ni ko mbàkke de war nañ ko ci mun jib waaye gis ñu ko mun leen dem leen ci xaamoos beneen def si rab mag ñu dem ci xaamoos war ko fekk fa muy muy firi soo ul xaal mbir mu ñaaw ñu ñëw ni ko mbàkke de fekk nañ ko fa soo ul xaal lay firi mun neen waaw kay mu leen ko waxoon mu dal leen mun leen boo gisee waxuma leen ko woon mooy su ma leen ko waxoon rek seen mbir ñaaw ba faaw soo ul xaal ji muy firi daal di doon seen mbir seen mbir ñaaw ba faw moo tax sëñ bi concentré wu ca loola nangu wu leen koo wax bàyyi ko ñu warale ko seen bopp xoolal ki nga xam ne dalaa war a tontu sax ci baat bi ni li baat bi tikki te yor maqaamatu sidiqiya nga xëy lu mu wax day am la yontu yàlla yu si waxan ni am ru mi ngi ci moom mooy bu bu nañ noonu soo la xaar rek ñu sax ci ay aw ay ba faaw dootul ñu jóge te loolu la baat bi firi te laaj nañ ko ko mu yabal leen ca dictionnaire yi dem leen xooli ko ci bañ gisal ko seen bopp ñëw ni ko soo ul xaar lay firi mu ne mu ngoog su ko doon wax mu leen di dal xoolal ki bëgg jàmm bay ba ba bay jëflantee ci noonu amoon na benn soodaan yi boo xam ni ba tey ab kàccoor la ca Mauritanie ñu koy wax naaji mu yor ngànnaay nasaraan yi yebal ko pour mu fekk sëriñ bi fa mu ne maanaa léegi rek faagaagal ko mu jeex yàlla dogal ba mu ñëwee ba yëkkati jaaseem li ma leen waxoon léegi ne bu da yàlla defaree jàmm kenn mun laaloo la ca xew xew ca mënta fexe ba àgg ci sëriñ bi mbooloo fekk ko fa bañ ko bañ ko bañ ko fekkee sëriñ bi dañu bu leen ko dóor bu leen ko xuri bu leen ko fitnaal sololaat leen ko yéreem te bijjanti ko ba mu jige poste tubaab bu leen gën a jige ngeen bàyyi yëkkati alal ba tam ba noppi booleel ko ca nag may ko kon ñun ñëpp mën nañuy roy ci sëriñ bi ci bëgg jàmm ak di ko ñaan te xam ni maanaam murit bu ne moom am nga royukaay ci woote jàmm ak bëgg jàmm ndax sëriñ bi fes na lool ci moom mu nekk ku tollalaa bëgg jàmm ci ci lii ak leneen kon ginnaaw wax nañ ni euh, waxtu wi dafa mat mm-hmm. léegi mën nañ ko tënk foofu kàddu yi noo ngi jéggalu bépp ñëpp nag lu ci jub sunu borom la lu ci dëng borom xam-xam bu gàtt bii doon wax ak yéen la tey doomu aadama dong euh, noo ngi ñaan sunu boroom defal nu saadata daara ñu ma ak kifaayati a may hima te def taw seex ci mbir mii te dooleel ko te defal nu ko mu bokk ci euh, tiyaaba yi ñuy fay ci suñu jaamu yàlla te cëmbërtëral barkeb seex ak saa ci mbooleem njaboot gi taalibe ak ak njaboot gi yépp barke borom jenne noo ngi noo ngi jéggalu ñëpp nag ci kàddu yi nga xam ne noo ngi koy yëkkati sunu wetu kilifa yu baax yi toog ci suñu wet waaye nag ndigal moom bu ñëwee li ma ko faral di waxee rek nafdatu masdurin la mooy loru ku dana danam di metti la faaw mu xaaxtandiku yàbbi ko waaye bu dul loolu looloo dañu am ngànt ndax ñii ñooy sunuy kilifa ñii nu koy def loo tam nu ko dàq waaye nag bu ndigal ñëwee rek da ngay xam ne ndigal ñëw la ndax murit moomul boppam kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ du Fall jenn ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm sëriñ bi jërëjëf kàddu yi am na solo wax dëgg ñu ngi ci sant bu baax a baax dafa mel ni ni nga ci li nga ci indi ci leeral doy na sëkk ba duñ ci def benn commentaire ndax euh, li ñu soxla woon rek ci nga développé ko ci diggante jàmm ak ni ma ko waxee léegi enjeu dañuy wax sax mondial wala ñu ñëw ci sous région bi wala ñu ñëw ci jëm bi doomu aadama personnel donc indi nga ci loo xam ni euh, alhamdulilah jërëjëf euh, mbokk yi xam naa kon ñu am fi ñaari mbir yu ñu bëgg jàllale ba ñett benn bi moo di téere yi nga xam ni baaxoo na di fi ñëw at mu nekk muy ay téere xam-xam yoo xam ni ki ko def mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Jenn moom Cheikh Abdou Salaam Jenn benn téere bi nag mi ngi nii euh, mooy jaar-jaar yi maam Cheikh isaa Jenn téere bu am solo ni ñu ko yàgg a waxee muy téere boo xam ni damay wax ni ku ko wut moom daanaka di nga xam ci borom njenne lu baree bare bari am na wesar wooy na ko itam ci woyu wolof mi ngi nii njëg gi itam xam naa ni euh, bariwul waaye ku ko soxla daal mën nga dem fee ci taabal ji ci ginnaaw di nga ko fa fekk incha allah beneen bi ci des mooy masaalikul jinaan boo xam ni daf ko woy ci woy wolof tudde ko naylul muxlisiin moom itam téere baa ngi nii mu woy ko ci kàllaama wolof muy masaalikul jinaan bi nga xam ni traduction am na waaye li ëpp ci lu ñuy gis en français la te defe naa euh, le chercheur Serigne Sam Mbaye su ma juumul moo ko moo ko defoon Ah, ci ci yooyu jamono waaye bii nag dafa dafa matal yaatal waaye di ci kàllaama wolof kon ñaari téere yëpp ku ko soxla rek muy jaar jaari maam Cheikh Issa Diène wala Masaalikul Jinaan bi ñu woy ci wolof mën nga dem fële ci taabal bi di nga ko fa fekk beneen bi ci des mooy.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 Dakar gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ndax ah, lii am lépp tawfeex sëriñ bi bi.